yow biram xam nga li ngay wax yow. bu baax. yow yaag biram yaag yaag buur loolu li ngeen sekk yëpp war ngaa taxaw fii nga jàkkaarloo ma nga may wax waxi takk buur lan laa seqatee ak moom. ab daf nan ngay seq moom dara. daf na ca Minna. teel a waaw man de dama yaakaar nag maa seexlu te nag maa war a seexlu sax. yow lu ma la yow ku yow ku lay ku lay seexlu ci àdduna xanaa dof pire lay seexlu ku yaram bi saf moom yaram bi safut suukar dong la mën a seexlu waaye lem rek. barke yu may baaba ku ko gis jàpp ci sa bopp